mbokki internet seen info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene dikk ak yéen ci tënku xibaar yi tey mardi 14 avril 2020 dañ koy tàmbaleeg euh, li nga xam ne mooy xibaaru Sénégal ak bilan bi nga xam ne mooy bilangu jàngoro bi ñu naan coronavirus euh, bésub tey ji nag ci 272 tests yi nga xam ne def nañ ko huit décès positif huit personnes kon ñoo amaat jàngoro ji ci huit yooyu six yi ay cas contact suivi la maanaam ñoo xam ne dañoo amoon jàngoro ji ba sax ñu ngi leen di saytu ñoo ko jotoon walla ay nit yoo xam ne saafonte nañ ak ñoom ñaari nag ay transmission communautaire la maanaam wàll yoo xam ne dafa am si biir nit ñi te sax xamuñu wàll boobu kon nan la demee ba léegi am na juróomi nit yoo xam ne bi ñu leen contrôlé ñoom dañoo négatif kon ñooñu wér nañ amatuñu doomu jàngoro bi bi fi jàngoro ji bi fi jàngoro 79 mu am 183 yoo xam ne wér nañ am si ñaar yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan mu am si koo xam ne dañ ko évacuer maanaam dañ ko delloo dëkkam gannaaw bi ko ay mbokkam sako fi mu nekk nii nag am na 113 personnes yoo xam ne ñu ngi sous traitement ñu ngi saytu maanaam seen wér-gu-yaram si l'hôpital yi ba léegi xibaar bu ñeel jàngoroy coronavirus euh, fi mu nekk ni moom mën nañ ne Touba amatul kenn ku fa am jàngoro ji parce que nga xam ne moom lañ fa mujjee woon internet muy patient boobu kooku démb sax lañ ko déclaré guéri ba tey boole nañ ko ci bilangu tey bilangu ñu wër ñu tey ñi si la bokk kon instant yi mën nañ ne Touba amatul benn cas bu positif bu ñu bàyyeekoo Sénégal te dem ci àdduna bi ba léegi li gën a fës ci xibaaru àdduna mooy lii di jàngoroy coronavirus un million neuf cent vingt mille neuf cent dix huit euh, personnes am nañ lii di jàngoro bi ci lim boobu am na cinq cent quarante trois mille deux cent quatre vingt neuf ñoo xam ne wér nañ euh, ba léegi mu am cent dix neuf mille six cent quatre vingt six ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan. Euh, kii di États-Unis nag Amérique moom mooy dëkk bi nga xam ne moom la moom la feebare bi gën a laal ki ci topp mooy Italie. ci xibaaru bitim réew ba léegi ñi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi ambassadeurs yu pays africains yi nga xam ne ñoom lañu accrédité fële ca Pékin euh, ca Chine ñoom nag euh, bind nañ ki nga xam ne euh, mooy ministre affaire étrangères chinois bii di Wang Yi pour nag wax ak moom ci ay xoqatal yoo xam ne dañ leen dañ koy xoqatal ay doomu Afrique yoo xam ne dañoo nekk foofu ca Chine ci depuis ay bés daal dañoo